aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaan irahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina moolana muhammadin salallahu taala alayhi wa sallam mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte di jàkkaarloog yéen fii ci kër sëriñ Abdou Samad Mbacké ibnu sëriñ Chouaïbou di waaj bis bu mag bi nga xam ne benn la ci bis yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa naan am na ci bis yi bis yoo xam ne sunu borom day wàcc ay yërmandeem ci kaw suuf kon nag na ngeen ci gaaw profité ci bis yooyu ngir am ci lu baax muy bis bu màgg boo xam ne bisub kenn la ci ndam yi nga xam ne lislaam da koo am ci kër ci sëriñ Tuba muy bis bi nga xam ne ci lañuy fàttaliku sëriñ Cheikh Souhaïbou Mbacké mu doonoon juróomi fan ci weeru koor muy koo xam ne da wax ne rek léppam alxuraan la waaye léppam weeru koor la ndax ci la feeñ jamono ci la wuy ji boroomam te li nekkoon ab liggéeyam ci kaw suufin mooy jàngale téereb sunu borom bi nga xam ne moom la wàccee ci weer wii ñu ci ndokkeel nag ki nga xam ne mooy kilifa ak yoon wi di cheikh Mahamadul Muntaqa di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ndokkeel ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Chouaïbou bu Mbàkke muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbàkke ak ñi mu bokkal sëriñ Soxay bu yëpp nuy am mbégte yi toog fii ci kanamu sunuy kilifa di sëriñ Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Soxay bu ak rakkam Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëriñ Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kàddu yoon wi ñu fas yéene koo ubbil kàddu gi rek mu sànni ay kàddu ci way juróom woowu nga xam ne manees na ne mooy way juróom ci aada waaye it manees na ne mooy way juróom ci ruux mooy li tubaab naan père spirituel manees na ko tuddee kon kooku ñu fas yéene rek taatan mu dolli ñu ci loo xam ne war nañ koo mën a roy war nañ koo mën a jàng ci jëmmi Serigne Souhaïbou bu moomu nga xam ne ni ma ko waxee woon rek ne léppam alxuraan la waaye léppam it weer wii la ci la feeñ jamono ci la wuy ji boroomam te li nekkoon ab liggéeyam ci kaw suufit mooy jàngale téere bi yàlla bi nga xam ne mi ngi ko wàccee ci weer wi kon loolu rek lañuy ñuy di tàmbalee su ko defee ñu jox kàddu gi sunu sëriñ sunu kilifa Cheikh Mahamadul mu dolli ci jàmbaari sëriñ Touba jooju kon sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ci weeru tedd wi di weeru koor di siyaare yëpp ci ëtt bu tedd bi di ëttub Serigne Touba di ëttub Serigne Souhaïbou waaye di ëttub Serigne Abdou Samad Mbacké mu Serigne Souhaïbou kon sëriñ bi ñu ngi lay delloo ab nuyoo bu baax di la siyaare tey jéggul yi toogaay bi ngir xam ne ci sa baax ak sa woyof yaa ñu ko falal ci sa ndigal ñu sañ ko def waaye kon ci suuf la ñu toog ndax mooy ni yoon yu baax a doxe waaye eh, sedd sama digg yooyu ni mu demee nga xam ne day mel du ñaari jëmm jënn jëmm la xam naa moo tax mu di wax woyofalal waaye kon nag te taxut muy loo xam ne lu war la kon ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di la sant di la gërëm. di nuyu mboolem njabootu Serigne Souhaïbou gépp te bu ñu tuddee Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi kilifa gi mën na yóbbaale ñëpp euh, di ñëw lu gàtt gàtt rek ndax euh, suñu doom yi nga xam ne ñooy bëgg a wax ci Serigne Souhaïbou bind ci téere gëstu ji xam naa danañ ci mën a wax lu bari waaye ñu ne fàttaliku ci tuuti rek ndax ni ko sëriñ Djily muy waxee léegi. mooy duñ dund ak jëmmam ju tedd nga xam ne koko xam ku ne la nga doon doon gone booba dangay gis jeexeeti Serigne Touba ci moom di gis xeetu Serigne Touba ci moom ci lépp nag ci ni kër gi bindoo ndax ku gis këram ni bindoo rek boo fa duggee dalee fàttali këru njaarim ga ndax kër goo xam ne mën na ñaar téeméeri mètre daanaka ci wet gu ne kees yu bari ak lépp na mu bindoo ni mu daa tooge foo ko fekk mu jublu xibla di dundal sunna rasulullahi sallallahu alayhi waaye foo gisee jëmmam nag sax dem ci Serigne Touba ba ci xar kanam bi muuraay bi lépp di ko bëgg Serigne Touba nag Serigne dégg ñuy wax naan diw euh, sarixam ak xam boo ko doon mandaxe ci balaas dañuy dëppoo waaye kooku mooy jëmi sëriñ son bi moo ko jëmal mm-hmm. ndax boo jàngee ab téereem ay mbindam gis ni muy segg lislaam ak ni bëgg ñëpp tënku ci ba taral ba ba day mel ne ku ko taral sax mel ne koo xam ne boo koy seet ma yëwu dara ci jullit bi jàdd ko ci li sariha santaane te loolu mooy loo xam ne itam waxu ko yem ci waaye da ko daa dund ndax loolu la koy firndeel loo xam ne lu weesu 1945 daanaka ba 91 génnut Tuuba génnut këram te la ko waral mooy di yar eh, doomi jullit yi rawat na njabootu Serigne Touba gi ak taalibe Serigne Touba ngir xam ne bokk na ci ndénkaande yi Serigne Touba mujj santaane mooy nañ jàngal ndaw ñi te toqi leen te yar leen mu liggéey ci liggéey bu rëy rëy liggéey boo xam ne képp koo xam ne dund nga ci keppaaram day dana jeexeetal jëw ndax moom mm, lii ngeen di tuddee léegi eh, système éducatif ci wàllu jàng Serigne Souhaïbou bu dafa nekkoon li ñuy wax kaana ummatan umma bu ñu koy wax mooy aw aw xeet inna Ibrahima kaana ummatan waaye Serigne Souhaïbou day mel ne jëmm lu jox ne taxawaay na taxawaay aw xet moo tax mu taxawal ay génération yu bari yoo xam ne ba nëgë ni la ñam yaraloon boppam waaye ñam yaroon kuñ yaraat ku ne jeexe jëm ngi des ci yow ba tey bokk na ci nim mu yore yi mu yore woon daara ñun ñëpp lu mat waxtu fajar door a jot nga xam ne ci loolu lañ judd ba sa juróom-ñetti at tam da nga jàng waxtu fajar door a jot boo sëlmalee fajar doo tëddiwaat da ngay continuer ci njàng ma te amutoon noppalu mm-hmm. waaye daara ji amutoon génn bu yor gàmmu weeru màggal masaan weesu ba weeru kooru di jeex man ngaa bañ a génn génn génn kees gi te la Serigne tubaa daa santaane ci ñu yar ko ñu yar ci njaboot gi Serigne Son bi da ko jëmmal ndax Serigne Saliou daana wax ne euh, ginnaaw bu Serigne ñibbi ñibbisee Touba ci lañ gis ñoom njabootu Serigne Touba gi liggéeyloo gi ñu leen daa liggéeyloo ñu bàyyi ko ñoo xam ne kon Sëñ Tuubaa ko santaane woon nga xam ne doom yi ci boppam sax mucc ñu woon ci ñoo leen tàggat ci liggéey dem ci tool yi sëriñ bi ñun ñii noonu la ñu tàggate woon alxames bu son ku bañoon ko def loxo yi neen la ñun ñii daanañ ak njabootu Sëñ Tuubaa gi ñu nekkoon ak taalibe yi dawuñ ñu xàjjale daana bëgg ñu xàjjale ñu sax waaye ci yar bi ak nit ñu tege coon ñoo ko daa bokk dañ dañ daan ci biir keese di buub ci suñuy loxo daanañ ko def lépp lu ñu tàggati nit rek sëñ bi dañu ko daa def noonu la yare woon daara ji looloo waral képp ku <coughs> génne ci yaru kër suñu son yu adduna du la mën a jaaxal boo gisoon adduna sëpp ak li ci biiram itam fanaan ci néegum ñax ak fanaan ci étage moo yem ci yow loolu ci suñu son bi la muy jëmm ju bëri yërmaane léegi laa ko wax Serigne Abdou Samad léegi ne ko sa yërmaane ji nga ji xam ci yow ndax loolu tam dama na dama koy seeral ndax nee ko nee naa ko li ma gis ci sa yërmaane bokk na ci nit ku mën a lugul dara moo gën gu tuut ngay sonn ci moom nga xam ne kenn séntu ci moom kenn xamul nooy mel ëllëg ngay sonn ci moom nit ku dem ba amatu njariñ Euh, nit ku ko amul njëriñ sax waaye koo xam ne dem nga ba màggat ba kenn séntatu ci yow dara ngay sonn ci moom nit ku dem ba faatu nga xam ne jébal boroom ci des gis nga la muy dëcc moom bu fekkee ay barkeeroom yu mu denceeroom boobu su mën na ko génn joxe loolu yërmande féetewul kaw waxtu ne itam nga gis muy sonn ci mbir moo xam amul ko njëriñ yërmande joojee nag da ko ci sëñ bi loolu man mën naa seere ci moom ndax nit. bu fekkee am nga ñeent fukki at ak ñett wala ñeent ñeent ñeent fukki at ak ñeent wala juróom boo ci génnee juróom-benn at wala juróom-ñaar li lépp ngeen ànd ko seenu dund kon war ngaa mën a seere ci moom barki démb dafa am mm, koo xam ne ab sët la ñuy waxtaan fekk ay nit toog ñuy wax ci sama digg moom ci kër Cheikh Mamadou Mountakha kooku ne kat moom Serigne Chouaïbou boo ko yar moo moom. Sëñ Abdou Samad lañ njëkk a xam ci suñu yi bu kon suñu diggante noonu la demee ma ne ko ma ne ko wax dëgg de ndax bi ma njëkk si kër Sëñ Buxaari booba ñëwaguma kër suñu son kon loolu lu yàgg la waaye sëriñ son bu wet li ñuy wax géej la géej nag doo xam boo ci bëggee dugg doo xam fooy tàmbalee wàllu yërmande gi noonu mel noonu la lépp mel tabe ga Serigne Souhaïbou te lu muy defir yàlla tax ñëpp ñu ko jege woon xam nañ ne mbaar bi daan toog ba xaaju guddi ñu duy ko ba mu fees ak dund muy wër di ko seddale bu mu jeex yërmaane ji àggoon na ci picc yi sax da leen wutaloon ay mbalke ci biir dëkk biir kër gi ñu ci naar ngir yërmaandem kon moom wet goo ko natt rek ak bëggam Serigne Touba nag àgg na ci mustawa boo xam ne mëneesu ko melal boo xoolee ñu ñi nga xam ne ñun ñëpp fa lañ bàyyi ko juy fa ci moom ku ci moo la yar ci bëgg Sëriñ Tuubaa tàggat ci danaa koy faral di nettali ba ma tàmbalee dégg muy nettali waxi Sëriñ Tuubaa ndax boo ko xamee ci biir kees gi waxtaanam wépp Sëriñ Tuubaa la kenn ko xam ci lu bëree bari nag ndax moom ab gëstoom du dégg du dégg rek jàpp ñi ko xam wax nañ ne balaa jàpp benn nett li ci mag ña dana la ko boo ba waxtu wa dellusiwaat moo laajaat la boo ci soppee benn baat loolu moo far ko xam ne warut déggee ci yow moo tax solution bi xistaam yëpp koy net sax da nga xam ne nii rek la woon ci sëñ bi bëgg Sëriñ Tuubaa ba nga xam ne nag boo koy seet ci biir waxam day mujj mel ni sax daanukat la kon moom ñaari wetam yëpp te jàkka jàkkaam ji itam bu ko jiitaloo suñu ébi rek moo fa daa jiite boppam te waxtu yëpp it fa la ko daa jullee te te sori woon na ndax ca kees yu mujj jàkka ji nekk ci kees gu njëkk gi kon noonu la fonkoon lislaam wirdu Maaxuus mosu ko jëlal kon moom boo xool jëf yu baax yi alxuraan ak xasida loolu moom fekk naa ko ba tey ndax am naa ci sama kaamil bu njëkk ba ma koy bind téere bi nga xam ne moom la doon jàngee te Serigne Abdoul Ahad doom bind ko ci daa génn ay xët ma jox ne ma naa ci roy ngir sama loxo nuroog moom kon moom danaa topp lépp daara ji li muy yaatu yaatu bala fee kenn bind kaamil bala ngaa tàmbalee bind kaamil danañ daje dajale alluwa yi wan ko ko mu xool mbind yi ba xool xam ne kii mën naa bind mu door a tàmbale te bu noppee it moo koy xool topp ko yàlla mooy ko ci ni mënoon a digloo ci ñu ko xam ci njàm ci ci ba muy jàngale noonu la amee jagle ci bu xoolee mbind day mel ne yàq yi moo mooy wane boppam kon Serigne yi bu daal buñ doon buñ duggee ci waxtaan ci moom daanaka euh, dañuy dem ba sori sax ndax cofeel gi ñu xam ci moom ma am ci moom tawféex ndax bis bu ñu fa Serigne Buxaari mu njëkki andi maag Serigne Abdou sama mag. ca bis ba li ñu nekk suñu baxaa juróom-ñaari at juróom-ñetti at yëpp mu indi ñu ci daara ji mosuñoo bokk moom sëriñ son bi daal njëkk bokkal ci doomu suñu Tuubaa ca guddi gee laar na ñun doon siyaare si jumaa ji bàyyi ci biir oto bi dem siyaare jumaa yi dem ci armeel dëppaat kon tawfeex jooju nag lañu ñu yàlla defal ci moom man nag ma amaa ci sama xaasi bopp ndax ku ne xam na ne daara ji ko fu ma si nekk bu la sëñ bi gisee li muy njëkk def mooy fetta su dellu ca daara ja waaye man nag yàlla defal na ma tawféex li ci ëpp ginnaaw takkusaan daanaa ñëw te sëñ biit it ba ma masaan agsi booba juróom-ñaar ak juróom-ñetti at lay am ba ni mu ko nag yàlla def na musuma fàttaliku fu bi jànnee wala mu ma dara te loolu ñaare baaxoon na ku mu gis nga jóge ci daara ji mu jàpp ne da ngay taxawalu waaye tawféex jooju laa amoon ci ci ak cofeelam ci yoo xam ne daanaka lu ci bari mun moo ko nettali sax. waaw sëñ dama bëgg laaj la ba xam yow. borom jotaay yi nga am ak moom bu ci gën a marqué. bari na nag. fàttaliku naa bis. Cheikh Saliou Mbacke ñëw fa. naa ci nettali ñaar. Serigne Saliou ñëw ginnaaw takkusaan bi mu agsee. Serigne Moustapha Xasida suñu Abdoul Ahad Mbacké mu suñu soxna bi nga toog mhm. ña ci des nag teewlu ma ko waaye ñoom ñaar fàttaliku naa jotaay ba mhm. ak man ñi ne ñi ne woon ci saal bu mag bi mhm. saal bi ñu daa tuddee saalu Monterey bi Serigne Saliou accès Serigne soxna bu ne ko na xàmmee nga kii Serigne Saliou ne ko de mun a kum lay nurool Serigne <laughs> Saliou xool xool ba ci àgg Serigne soxna bi na mën ngaa dem maa ngi fàttaliku ak takkusaan goo xam ne ci mujj gi boobu sëriñ son bi daa toog di xelli ataaya na suuti ibra kay yëglu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ko boobu maa ngi toog ibra kay ñëw indi fa tap bu mag a mag tap boo xam boo ko tàlloon jóge na fi ba fële sëriñ son bi yéemu ci lool mu ne ko Cheikh Abdoul Ahad moo la ko jox mu ne ko ah léegi kii man man de dama ne woon ndaw lu fi njëkk ñëw bàyyi ko ci sëñ Abdou mu ne ko tap bu mag bu fa njëkk ñëw na ma ko yónnee nag taw tawaf bi may defaree sëñ bu xarit ma yóbbu ko fa far nga indi ko fi kon moom eh, sëñ Tuubaa daa da da daa daa lëkkale mbir ak fajug ajo lu ne ci xelam rek mu def ko bii nga xam nag mooy laaj laaj bi ma sëñ bi sama laaj léegi mooy xam ngeen sëriñ bi comme ni ma ko waxee rek cofeel gi mu amoon ci man dama daay yónnee yàlla xam na ko ba ci poos mbuum yón yónni na ma ci kees ga ci biir. yónni ma ci mbubam ci biir néegam te sëñ bi xaar ma jur sax mosuma dugg ci néegam ngeen wax tawfeex ji ma am ci moom am ci man yërmande ko fonkel lool goo xam ne xamu fu mu yem bi fi sëñ bi xaar ko nag ñi jege ñëpp da leen wax ne ba siiwur du ma sañoon dootuma ko tegati bët ndax yërmande ji ma am ci na fu ma gisee da koy fàttali sëñ bi maa ngi fàttaliku. xisa yi la daan netti sëñ Tuubaa yu bëree bëri yoo xam ne boobu gone nga lool. waaw gone na tey la doon bàyyi xel. waaye boo ci boo ci fàttaliku bu la ci gën a marqué ci xisa yooyu boo xam ne ko baaxee muy di. xisa yi de moom daa bëri suñu choix bi moom li li si mën wax ci moom ci xisa dafa bëri ndax daanaka boo njëkk a jor eh, boo am na ci boo xam daal moom sama xel dana koy bàyyi xel lool ndax day wane jëmmi Sëriñ Tuubaa ak ak ak ak meloon lim daan nett ne nit dafa ñëw yëkkati addiya ju bare bare jox ko sëñ bi sëñ bi nag ni ko xamee lu ko nit mas a rek lu mu bari ba daan tegal ne du alxuraan nee na bi xalaat cam xel ne sama addiya ji bare xanaa sëñ bi du gisut nee na fi ko xalaatee rek sëñ bi wëlbatikuwaat ne ko alam yaa alam bi anna laaha yara mooy xanaa xamoo ne yàlla gis na ko kooku nee na ke nee na ma jaaxle ma ne ah lii de kenn mësu gis kuy tontum xel koo xam ne loo xaaral mu tontu la sëñ Tuubaa wëlbatikuwaat ne ko allaa ya'lamu man xalaq kon suñ suñ son bi la meloon xisa bi may nettali nag bi mu joxee ndigal ne bu ma sonoon dootuma ko gisati wax ko ñu ko wër yàlla def suñu kër yi bi ñu koy tabax ndeysaan mm-hmm. ñëw bënt ma fa may ñëw ci moom di jël si ak ñaan mm-hmm. ak meneen mbir moo xam ne bu baatine la mm-hmm. maa ngi ko fekkee ci new gi new gi newoon ci diggante ñaari terrasse yi terrasse bees bi ak bu mujj bee mujj waxtu yoor une heure du ma ko fàtte ñu bëgg a jul tisbaar ci laa ko fekk mu sol baxa ndeysaan boo gisee jëmm ji boo gonee laa lool waaye waaye mu jox Sëriñ Tuubaa ni nga daa dégg Sëriñ rek sa xel day dem ci moom da koy dund sa digg moom. bi fa accès ba wax ko yite di addi jox ko sëñ bi daa sëgg nangu maa xool sëgg sëgg di ñaan di ñaan ba ci àgg mu daa xoolee loolu ñi xam Sëriñ Tuubaa di ko melal wax ne ne sëñ noonu la daa xoolee day mel ne ku dul jàkkaarloo yow. bi mu defee nii ba séen ma rek daal di gasu gàtt loolu moom bu fi ne nekk ci sama sama moo koy nettali sa sama morom xëy di bëgg a sotti ndax benn yoon laa ko gisaat bisub ajjuma ci weeru baraxlu wi weeru baraxlu wala rajab lenn la ci rajab baraxlu laa ko gën a teg nag Serigne Cheikh Moussa fa ñu ànd ñu fekk ko ci saal tawaf bi. muy waxtaan ak suñu seex ba di ko wax yéen jëm am ci bëgg ubbiwaat jàkka ji jàkka jàkka ji def ko mooy fi mu daa tuddee jàngukaay bi mu ne ko dama fa bëgg ubbiwaat de ndax daara ji de bu ma soñoon waxtu ne muy muy bëri bëri daanaka xam nga lu tax ma bëgg ko ubbiwaat ah xam-xam bi laa bëgg euh, mu gën a jolle. Mm-hmm. ne ko la ci jiitu nag seen jëm yii ñoom ñoom ñii ñoo tax ma bëgg ko ubbiwaat. jotu ko def sax far yàlla dogal ci koor ga mu bàyyi ko fi kon nag sëriñ bi moom day ñaan rek suñ borom fayal ñu ko ay leeram te taa suñ ci barkeeloon te te sëriñ fay fay ko ndax wóor nañu ne la ko sëriñ Tuubaa di fay waxuma la taalibe yi sëriñ Tuubaa yi waaye jullit yëpp xaj nañ ci ndax lim def ci doomu aadama yi dundal ko ci ruux jëmbat ko ci ay jëmm mu nekk ay génération génération jooju tuyaaba kenn xamul fu mu toll. tam def ko nag ci ndigalu Sëriñ Tuubaa ci jamono ju jafe jamono ju xat joo xam ne dégg ngeen ma nettali ko ba tàyyi booba jafe woon na daa nañ dem ba àgg ci di xëy ci kër gi duñu am luñ lekk waaye lépp mu di ko muñ ngir xam ne ndigalu Sëriñ yi moo gën lépp ci moom bis dégg ngeen mu nettali ko xëy na sax du di su war a wax ci rajo ndax lu lu lu biire la waaye rek ngeen xam ñoom ngeen xam daraja jëm toll ak fi ko Sëriñ Tuubaa toll ak nii leen Sëriñ Tuubaa di wane boppam sëriñ bi neen bis booba kër gi metti na lool nee na mu dem ba ta ak jaaxle di ko bëgg a dugg nee na fi mu sëlmale fajar di wirde nga boo booba naa leer sax nee na yor kursam di yurdu nee na ba ci yàgg mu mel dafa xaw a gëmm lay nuru waaye gëmmut bu baax nee na mu gis sëriñ bi Sëriñ Tuubaa ñëwul ko ne ko muñante sax ci lii ma la digal rek li nga bëgg lépp daan la fekk si fi nga toog mu ne bi mu koy gént nag bi mu ko bi koy gis nee na sëriñ bi da ko xeeñ laaj ko lu sikki nee na bi mu xëyee suba nag dadaa tudd tur yi sa diw ak diw ak diw <laughs> nee na ko ci agsi ak Seydou Fall waaw Seydou Fall takk naa ko ci nee ko agsi ci néeg ba ne ko ah, sëñ bi sikk si xeeñ ci néeg bi de ah, neex na loo kañ nga ko am te sëñ bi neen boo xawma kañ laa gëj a gis sikk ci àdduna kon nga xam ne Sëñ Tuubaa dafa ñëwoon yooyu nag yim ci daan nettali am na ci yoo xam ne sax kenn ñemewu ko wax ndax euh, Sëriñ Tuubaa boo delloo delloo ci mbindam yóbbu yi xam nga sëñ bi mbind yi dafa bari da ci am loo xam ne da tagg yonte mooy matu al matu wa thanaaw am ci yoo xam ne asalaatu ala nabi la waaye am ci yoo xam nag mooy yi nga xam ne sëriñ bi lu mu romb wala dund diggam ak boromam wala may gu ko suñu borom may lépp ci la koy def def ko ngir ndamu def ngir bëgg sax nit gis ko ndax wax neen lam yoo gis wala yoo gis ibra suha li kaw kon ay sekker la yoo xam diggam ak waaye am na ci yoo xam da ngay gis dégg mu fa nga koy ubbee mooy ko sikk sàkk rek ab yëfar moo tax am na ci yoo xam ne di su ko mën a nett li ñëpp ndax ku ci sa ngëm-ngëm agut wala sa positif agut boo xawee sikk sàkk rek alku alkande dugg na la kon ñi ngi jeexal foofu wax ndax loo gën a sor rek xaal bi dina gën a dugg ndax li nga xam dund ko loolu loo dégg bokkute lu nettali li ñuy wax ci sëñ bi moom dañ ko dund ak moom dund koy ati at. moo def murid saadix moo def murid saadix waaw kon nag mënuñ ko fay te ku lay def murid saadix ba nga gindi ci sëñ Tuubaa mënoo ko fay te loolu moo ko def ci man asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw bisimilah. ma jeexale ko rek sant Serigne Abdou Samad Mbacké. ndax loolu tam wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis yàlla sax lim la defal day bëgg nga di ko wax wax naa ko waxati ko ndax suñ diggante bu waxee ma wax sax day daal di mel ne dañuy ragalante ginnaaw waaye du loolu bëgg ñëpp xam rek ni mu demee ndax ni ma leer leerle rek fi ñu jaar dafa bari lool te lim ma sédd ci bopp mi tam mënu ko weesu ndax jàpp naa ne. maako ko gën a ñëpp te loolu dafa yàgg ndax bi ñu nekk suñu sooy bu àllarba alxames ajjuma nga xam mooy bi suñ du jàng këram lañ daa aña fa leen reere kon loolu yàgg na bu ñu mësoon ñëwut it muy gaaw dimanche altine talaata àllarba it day jël añ bi di ñu ko yónnee loolu moom la dundee suñ digg moom te booba ña ngi ca daara ja mokkaluguñu alxuraan mësta mësta mësta soppi ko nag ca taxawaay boobu ba bañ sañ sama kër keroog ba may njëkk a tukki moo gunge ba aéroport loolaa ci gën a tuuti nag Abdou Khare doom keroog bis fa mu juddoo 1994 maa ngi fàtte ab carnet bu ma yoroon mu bindu ko ci ci la ma ko jébbale bi mu matee mu ne ma noppi naa ci moom te loolu mooy da ci gën a tuuti sama waajur jigéen tudde na ko doom kon moom. tuddi na ma yeneen doom ci ay njabootam itam kon te loolu laa gën tuuti ci nag ci dox suñu diggante ndax lu mas am ci lu baax man la gën di yéene ci boppam wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasan dund naa ko sama digg moom ci lu bari loo xam ne sax mënu kon moo tax dañ koy ñaanal bu baax yal ko yàlla gën a ko ndax suñu wéttalu xol la ndax nit koo xam ne moo ko wax léegi rek fu fu fu fuñ ko gisee rek euh, mbégte mi ñu àndal te loolu tam cofeet gi gi mu am ci man ma am ko ci moom moo ko indi muy loo xam ne sax mu ne su ko misaal waaye dañ koy ñaanal bu baax yàlla na ko yàlla gën a dëgëral kattanal ko te li ma gis si moom di ko wax léegi nee naa ko ndax nit bu fekkee eh, seen diggante nga bëgg ma ñeent fukki at du benn bés waaye nag gis naa ne mi ngi gën a dund Sëñ Tuubaa di gën a bëgg Sëñ Tuubaa yoon wi it waxtu ne mu di ko gën a ñor a taw tawféex la kon demee ne Sëriñ Tuubaa du ko nangul Sëriñ Tuubaa nag bu la nangulee ndax loolu ci ñun ñëpp dama ko ci seetlu ndax da ngay dem ba ni ma ko waxoon ci njët bi nga dëkk ci néegum ñax ak dëkk ci étage ñoo yem ci wala lee sax dàqal la ko man de daanaka àgg naa foofu léegi dama leen ko wax dama naan leen bu fekkee am naa lu may rëcc ci sama adduna de mooy sama kër yu rafet yi ma tax bu tey doon démb dootuma ko te yàlla xam na ko lay lancé bu tey doon démb dootuma ko def ndax loolu nag day mel ne Sëriñ Tuubaa moo ñu dimbale luñ ko gën a jege rek adduna di gën a soof luñ ko gën a jege si day mujj siñ bi rek ngay bëgg te sëriñ bi eh, xol bëgg sëriñ bëgg leen xëju ca sëriñ bi daa wax naan Sëriñ Tuubaa du fecc lib saako waaye loo gën a jege sëriñ bi rek di gën a dëddu adduna di di di di dëddu adduna di di di ko di ko gën a bëgg moom mu mu lay gën a gën lépp nag mm-hmm. loolu la yàlla nañu ci dimbale ndax ñun ñëpp ay ndab lañ mm-hmm. ay ndab lañ ndax ndab yoo xam ne li suñ wax naan bu leen ma gërëm gërëm leen la law bi bu leen ma xarab xarab leen law bi mm-hmm. ndax jëmu ji ne ko sakk ni latt ni ni ni law bi di yettub këlam waaye nag ku ci ndab la sa bu setut diisu ko duy kon nag ñun ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dañoo waajal mm-hmm. def ñu ay ndab mm-hmm. yàlla nañu Sëriñ Tuubaa dimbale ba ndab yi ñuy def bu bu dara taq yàlla nañu Sëriñ Tuubaa gën a dimbale gàttanduñu ba mm-hmm. lépp loo xam ne ci suñ jëmm yi neexu ko ci moom yàlla na ko dindi ci ñun la bëgg suñ jëm yi itam yàlla nañu ci dimbale ba loolee itam ñu bañ ko génn bañ ko wàcc mu gàttanduñu ci. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Cheikh Mouhamadul Bachir kon noo déggandoo kàddu yooyu mel na ne jarut commentaire bu yàgg sax xëy na rek déggees na ci ne kon nun taalibe sëñ Tuubaa yëpp danoo war a roy ci njabootuk sëñ Tuubaa ci seen melokaan wi ci bëggante ak jàppante ngir sëriñ bi ak it fonk wëllëre lool seen diggante ni mu ko waxee ci sëñ Chouaïb bokk ñi mbokkal sëriñ bi ak ñoom ñii nga xam ne ñoo ñoo leen meññit ñu wéyal loolu kon loolu it noo ñaan ñuy ñun ñi nga xam ne ñooy seenu njaboot sunu boroom dimbale ñu bañ mën a wéyal loolu mu mel ne rek euh, loo xam ne dañ koo jëlee ci seen seeni waajur waaye mu doon loo xam ne leer goo xam ne la ci sëñ ba la la la tàmbalee sëriñ bi waxoon na lu mel noonu ci ñett yoo xam ne nee na koo gis maa la ko gën a def néewug fàtte am wëllëre bañ ko ma ñax kon mel na ne ñett yooyu yëpp it doon ngeen ko ci seen maam nuy ñaan ngeen ñaanal ñu it ñu jaar ca tànk yooyu rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa kon ñu bàyyi xel incha allah sëñ Saourou Kébé waxtaan wi nga xam ne fas na ko yéene amal.